boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu bind abonné bu leen fàtte bés fu def cloche bi foo leen mën ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo wajjantu salaamaaleykum wa rahmatulah mbokki Touba ci kanam nooru dara yi nii mbokki commission sociale ñu ngi leen di bu baax euh, su ngeen gisee jataay bii nag ni ñu ko baaxoo def ak mu jot rek noonu lañ ko fas yéene defatiwaat muy woote bu rëy boobu nga xam ne moom la sëriñ Abibu woote ci dëkk bu sell bi di Touba te fas yéene dimbali jaami yàlla yi waaye taalibe sëriñ Touba yi nga xam ne dañoo néew doole commission sociale bii nag baaxoo nag événement bu ñëw rek mu am nu mu ci taxawee fi mu ne nag ñu ngi toll ci waajtaayu tabaski ñuy waajal nag ay koddaay yoo xam ne dañ koy jébbal suñu mbokk yi nga xam ne xëy na lott nañ ci wala ñu ci doole liggéey boobu nag ci lañ nekk nii nga xam ne biñ ko dalee waaja ko dajale yëpp toll nañ ci euh, lancement bi war a commencé séddale bi ni ngeen ko gësee oto yi ñi ngi indi yére yi waaye oto yi tamit ñi ngi sarse yi ñu jot a trier ba noppi fas yéene dem fekki askan wi fa ñu nekk jébbal leen ko képp koo xam ne sa wërsëg nekk na ci rek waaw bilan bi nga xam ne moom lañ jotagoon a def ci yére yi fi ma fi ma nekk nii may wax ak yow yi ngay gis mu ngi nekk 3000 euh, 331 euh, mbuus 3331 mbuus yoo xam ne mbuus bu nekk def nañ ca lu mu néew néew fukki yére am na ci yoo xam ne am na peeri dàll am na ci yoo xam ne am na ay jaaro ay takkaay ak ay lam ak yi ni demee am na ci yoo xam ne am na ay kol waaye jëmmi yére yi nga xam ne moom lay war a sol moom def nañ ci mbuus bu nekk lu mu néew néew fukki yére léegi nag 3331 euh, mbuus bu ñu ko doon xayma mi ngi wekk mi ngi war a nekk 32210 euh, pièces yoo xam ne waajal nañ ko ba mucc ayib ñu fas ko yéenee jébbal bokk yi nga xam ne ñi ngi ci dëkk bu sell bi di Touba te suñu borom dogal ñu lott ci soxla ko war cee mën a dimbandiku dimbali ci seen njaboot yére yi nag am na yére yu góor am na yére yu jigéen am na yére yu xale am na yére yu mag waa social moom bàyyiwul dara ndax bu ngeen xoolee euh, maanaam euh, bis bu nekk bis bu yàlla sàkk social mi ngi dox ci dimbali nit ñi ci ab dund mi ngi dox ci dimbali nit ci ci euh, koddaay waaye mi ngi dimbali nit ñi ci am faj waaye mi ngi dimbali nit ci mbooleem soxla boo xam ne nit am na ko jooytu ko ci Touba ci kanam rek dañ lay boole ak commission sociale boo ñëwee nag wax fa sa soxla it lu mën a doon rek soxla sociale dana ko noté di ca dox waaye dafa am ay bës yoo xam ne dañ koo tànn maanaam ñu tuddee ko bési sociale di ko wootee muy lu mel ne ki nii waaye màggal ak koor ak korite yooyu dañ koy woote tuddee ko bési sociale nga xam ne dañuy am lim boo xam ne dañ ko cay sàkk am na yére waaye tamit ñi ngi laaj lu jëm ci koppar lu ci waay man liñ fii dajale ñu jël ko dimbalee ko lenn ci bokk yi nga xam ne xëy na néew nañ doole ci tabaski la ñuy dajale ci koppar néew ko bari rek ñu seet kenn ku nekk loo xam ne dañ la koy dimbalee nga dollandikoo ko ca xar ma nga doon waxaale wala bu fekkee jëloon ngam xar am loo ca dese social mi ngi ciy jàpp waaye niñ ciy jàppee nag noonu la ñuy tàllale loxo nag ñëpp képp koo xam ne nii am nga lu aw des ñu ngi lay tàllal loxo moo xam xaalis la moo xam pomme de wala soble wala café ak sukkar lépp lu doomu aadama di jëfandikoo dañ koy laaj ndax boo fàttalikoo da ngay xam ne social bi ñun li ñuy joxe bokkul ak ñaar téeméer yi ñuy laaj jëlewuñ ko ci ñaari téeméer yi mbokki taalibe dañuy joxe seen ñaari téeméer ba noppi ñu ne lu waaye am lu waaye man kon lu waaye am lu waaye man jooju ñu ngi ciy tàllalaat loxo ñëpp bëgg ñëpp dugal ci seen loxo ni ñuy dimbalee ñi feebar noonu la ñuy dimbalee nit ñi ci wàllu dund ndax fi mu nekk ni may waxee yow rek lu mu gàtt gàtt am na 71 personnes yoo xam ne fas yéene nañ leen a jàppale ci wàllu dund ak yére yoo xam ne oto bi nga gis ni muy sarse ci ñoom la ko jëmale te nekkoon ñoo xam ne it ay way tawat lañ yoo xam ne doon nañ sàkku fi ñoom tamit danañ leen boole ci ndimbal li waaw ah, ni ñu ko fas yéene séddale ne comme ni ñu ko gisee oto yi la ñuy mobiliser tey jumtukaay bu kanam am wala taalibi boo xam ne mën ngaa jaayante ngir yàlla ñi ngi lay woo diggante tey ak suba dañ koo organiser ba dañoo bëgg a jël oto yi sarse ko bokki taalibe yi yëg ci ñu dem fekki nit ñi maanaam 3331 famille 3331 buntu kër dañ faa war a taxaw buntu kër bu ne ñu yëkkati mbuus jox la nga xam ne woowuñu nit ñi ñuy ñëw di ko jël si ak di rang ak yooyu déedéet waaye dañuy dem fekki nit ñi fa ñu nekk ci seen i kër bu ñu egsee ñu jël mbuus ji jébbal ko borom kër gi bu ko defee borom kër googu nag mooy xool nu muy def ba njaboot gi fukki nit yoo xam ne seen wërsëg tombe na ca mu séddale leen ko noonu lañ koy séddalee waaye terewul it nag bokk yi nga xam ne dégg nañ woote bi te xëy na euh, soxla gi aajowoo nañ ko lool ba tax ñu sol seenu dàll ñëw muy ñi ngeen gis ñu nekk ci baas bi fas nañ yéene ñoom ñëpp kenn ku nekk bala ngaa dem li ciy sa wërsëg it danañ la yëkkati ko jox la ko waaye jëmmi séddale bi moom officiellement dañ koy sarse ci oto yi fekk askan wi fa nga xam ne fa lañ dëkk ñu dugg ci 3331 borom kër kër gu nekk ñu yëkkati mbuus jox la di la wax ne nag 3331 sase yii lii ñu séentuwaat mu ëpp ndax suñu mbokk yi war a jógee dakaar ak seeguñ waa dakaar ñëwaguñ waa euh, Kayaar ñëwaguñ waa euh, Njaareem ñëwaguñ te ñoom ñëpp ñu ngi ñëw ak lenn ci bokki taalibe yi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi jamono ju nekk ñoom it euh, di dajale ñoom tamit yéen gis oto yi di wàcce ay yére yoo xam ne ñu ngi koy collecté suñ noppee loolu yëpp xam naa danañ ko yokkaat ci lim bi ragal nañ ne daal lu mu gàtt gàtt ren jii boo moytuwul danañ àgg juróom fukki yére Euh, sant yàlla bu baax sant sëriñ bi waaye sant euh, di ñaan seen Mouhamadou Mountakha yàlla na fi yàgg lool tëwër waaye ñaanal sëriñ bu nag buñ ko waxee rek mboolem kilifa yi Touba ci kanam yi dugg nañ ci waaye tamit suñ tuddee sëñ Abdou Fatah Gueye dana jiyee yóbbaale mboolem donga yi waaye nag ñu jagleel nag spécial ngërëm ak cant ko mu yoo muy Cheikh Mouhamadou Mourtada moom sëñ Abdou Fatah mi jiite commission sociale bi wala fii dañuy wax ne ku yokkul yaa wàññi waaye fi mu jëlee social ak fi mu ko indi képp ku xamoon démb xam tey xam ne social dox na dox bu gën a gaaw social bokk na ci commission yi nga xam ne moo gën a dox ci Touba ci kanam waaye nag doxin wi li tax mu gaaw rek ki ko jiite la ndax moom néewut dem leen ma ñëw waaye fu mu toll danaan ñëw leen ñu dem kon moom ma nga ca kanam di soññi ñu ngi koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér waaye mu yàggal liggéeyal maam ji ba li mu yéene taalibe yi suñu borom defal ko waaye nag ñu soññi mur ji ku am looy bu barkeeloo daal ñëwal ci seesu Touba ci kanam wala collecteur wala wala euh, képp koo xam ne nekkal na Touba ci kanam ci gox ba nga nekk boo ko tegee la ngay teg ci loxoom te leeral ko ne ci social la jëm dana agsi bu dee koppar nag mën naa jaar ci 77 914 26 68 am na orange mu ne am na weef xeebu ñu nag yéemulu weer wu nekk ak jamono ju nekk ñu ngi koy laaj ku ko jëkkuwul tey heure boo ko jekkoo rek ñu ngi sàkku sa àddiyee ñëw ñu ñaan suñu borom defal leen tawfeex ak jàmm ak sutura asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi leen di ziare bu baax ci turu Cheikh Mahmadul Muntaxa di ñaan mu yàgg fi loolu te and ak wér waaye di ziar Alaaji Sëriñ Takko ambassadeur Touba ca kanam waaye ci turu Sëriñ Abibulahi Mbàkke mii ne ci sunu gannaaw di kilifa tuubaa ca kanam turu sëriñ Abdoulaat Mbàkkeem sëñ bu soxna Bintu Mbàkke waaye itam sëriñ Murtada Mbàkke moom sëriñ Abdoul Fattah mi président commission sociale nu bu baax sëñ Seexuna Mbàkke du yoolu mii fi nekk ak mboolem njabootu sëriñ Tuubaa gi yëpp waaye bu nu jaaree ci président sëñ Abdoul Fattah dana yóbbaale mbooleem dongo yi mbokk yi tey noo ngi fii ci centre formation bu Touba ca kanam fii nga xam ne fi la ñuy tàggatee soxna yi ngir ñu mën a amee ay métier ba mën a taxawu seen bopp lan moo fi dajale nag mooy ñeenteelu at bu ñuy jox mbokki taalibe yi social tabaski bii kon moom mooy juróomeelu yoon bu ñuy jox mbokk taalibe yi social tabaski loolu nag doon lu am solo loo xam ne moo tax tey kilifa yi teew ci barab bi yemoog samedi ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juin atum 2023 xam naa ngir bañ a guddal danan jébbal kàddu gi soxna Ndey Diop jannatu bismillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di julli ci yonante bi di sant Serigne Touba Xaadim Rasuul di sant suñu kilifa yi nga xamante ni ñoom la ñu feggoon nii waaye di jéggulu ci kàddu bi nga xamante ni ñu ngi koy yëkkati seen kanam waaye nag ndigal moom bu jibee rek ndigal jib na waaye di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi te wér lool noonu lañ koy ñaanale si Abibu bi suñu wet ñu feggoog moom di ko ñaanal sëriñ Alaaji Tàkko ambassadeur Touba Ca Kanam di ñaanal euh, nga xamante ni mooy jëriñu liggéey bi noonu la koy ñaanale président Abdou Fatah Gueye euh, di ko ñaanal euh, soxna Bintu mi nga xamante ni moo njiitu soxna yi ak mboolem kilifa yi nga xamante ni ñoom la àndal waaye nag duñu euh, daaneel suñu kàddu te sant ñu sëriñ Moukhala Abdou Fatah bi nga xamante ni moo war waral suñu teewaay fii euh, mu jiite commission sociale yi ñu koy jaar jaa jaajëfal bu baax a baax ci taxawaay bi ak yitte ju kawe ji nga xamante ni saa su nekk mi ngi koy def ci liggéey bi euh, xam naa sëñ Baye li may gën a indi ci leeral mooy ginnaaw bu ñu soññee tàmbali la 14 bi passé lañ tàmbali soññee bi waaye jigéen ñi ñoom ñëpp wusi nañu ci diidoo euh, soxna bind bi nga xamante ni mooy kilifa bi na damay bañ a ci lim waaye dañuy def bu ñu xëyee rek dañuy woote téléphone ñu ànd ak seen Cheikh Gueye ak équipe bi nga xamante ni ñoom lañu àndal dem fekk leen seen benn jëlal leen yére yi indi leen ko fii ci magasin bi fekk seen bay siise euh, yére yi nag takku na lool macha allah bari na te lépp rek jigéen ñi ñoo ko dajale andi ko muy liggéey bu jafe jafe jafe jafe muy liggéey bu méttee méttee méttee waaye ñoom loolu lépp xool ñu ko Serigne Touba mi liggéey rek moo ñu ko jàllal euh, du ñu ñuy sant nag mboolem soxna boo xamante ni nii tàbbal nga ci sa yére ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax a baax ci ndigalu sëñ Mourtala am sëñ Abdou Fatah ndax dañoo am yéene ci commission sociale jigéen ñi bu sociale jotee rek kenn ku ne da nga def sa yéene wax dëgg yàlla ndax yére yi ngay gis mën naa ni tey waroon wax. bi junniy pièces bi jigéen yaakaar naa ñaari góor rek nga ciy gis te kon jigéen ñi war nañ leen a jaajëfal bu baax a baax sant leen tasagal leen ci turu sëñ bi Moutalla Fata waaye ñuy jaajëfal tamit euh, suñu équipe bi nga xamante ne ñoom lañ àndaloon di dem ci terrain bi su ma ci jiitalee seen Cheikh Gueye xale yi nga xamante ne ñoom lañ àndal dañ day daal di mat sëkk ndax dañuy bañ a dugg ci lim bi waaye ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax taxawaay bi rafet na waa Touba Ca Kanam gépp ñu leen di sant di leen jaajëfal bu baax a baax. asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala ñu ngi jaare suñu mbokk ñu ngi nii suñu mbokk daal di ñëw waaye ñu tënk ñëw di ziar bi suñu jëriñ suñu kilifa seen Habibou bi ak seen Mousala ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñoom lañ àndal liggéey yëpp. di sant yàlla bu baax ku ñu yàlla boole ak yéen waaye di sant sëriñ bu baax ci liggéey bu rëy bi nga xam ne dañ ko ànd ak kilifa yi te ngeen nekk kilifa yoo xam ne waxuñu fuñ gëstoo gis leen waaye toujours buñ xoolee dañ leen di seen ngeen nekk ci suñu kanam nangoo ay ca waaxu si leen loolu kon tax na ba lépp loo xam ne def nañ ko te dañ koy sant yàlla waaye dañ leen koy sant yéen tamit ngir seen taxawaay ak seen pasteur ginnaaw boo xam ne nag euh, soxna Ndeye Diop ak équipe bi àndaloon def nañ liggéey bu am solo comme nan mu jox ak di ko correcté ñoom yëpp ñu di ko indi fii euh, dajale nañ lépp biñ ko dajale ko am na nag ñu bari ñoo xam ne ak seeguñ seenu liggéey tamit xaymaaguñ ko waaye li nga xam ne fi ñuy wax yéen tey jii moo fi jot a teew ñu xayma ko ba fas yéene koo séddale Euh, nii lañ ko fas yéene doxale ndax liñ ci dajale lépp ci yére dañ doon wut ay mbuus yu weex sol ko ci ginnaaw buñ ko embalee ci ay emballage yu mucc ayib ko ba nga xam yére bu ci nit jot mën nga koo sol xew waaye mën nga koo sol dem tamit jullikaay wala fu la sol yooyu lañ dajale nag def ko ci emballage wëlbati ko ko ci ay mbuus yu mag mbuus yu mag yooyu nag lu mu néew néew mbuus bu nekk def nañ ca fukki yére am na ci yoo xam ne bu ci ne am na peeru dàll am na ci yoo xam ne am na peeru daal ak kool am na ci yoo xam ne am na ay takkaay ci xam ne moo fi ñëw lim bi nga xam ne moom lañ ci dajale ci mbuus nag ñu ngi toll ci trois mille trois cent trente et un pièces yoo xam ne ay mbuus la yoo xam ne mbuus bu nekk def na dix yére lu mu néew néew. ni ñu ko baaxoo séddalee ginnaaw bu ci amee expérience ci at mu njëkk ma nekkul séddale boo xam ne ñi ci bokk yi dëppoo dañ koy nàbb nit ñi di daw di ci topp ak ñu sànni. waaye dañ dañoo fas yéene topp trois mille trente trois cent trente deux trente et kër yoo xam ne kër gu nekk danañ ci dugg defe naa leer na. Mhm. trois mille trois cent trente deux kër ñetti junniy kër ak ñetti téeméer ak fanweer ak benn ci ay kër yoo xam ne kër gu ne danañ fa dugg dugal fa mbuusub yére gu def lu mu néew néew fukki yére am na yérey góor am na yérey jigéen am na yérey xale. am na tamit ay takkaay bu fekkee dañoo ñëw ci détail yi nga xam ne moo fi nekk ci yére yi góor ak yére xale ak takkaay yi am na ay drop lu toll ci cinquante neuf drop ñu ngi ci am na tamit ay rideau lu toll ci vingt huit rideau am na ci am na ci tamit yére góor yi mu ngi toll ci neuf cent six yére yére góor yi waaye col yi lépp mu ngi toll ci deux cent quarante cinq col muy col yi soxna yi euh, ay dàll am nañ ci lu toll ci cinq cent quatre vingt quinze paires dàll am nañ tamit lu toll ci Euh, yére yi nga xam ne kenn ñëwagu ko ci li fi daje ci liñ konteegoon am nañ ci 597 pièces yoo xam ne kenn ñëwagu ko maam ñuy fàttali tamit ne jëndoon nañ ab lu toll ci 2 million 100 mille yoo xam ne dañ ko jëndewoon ay pièces yu bees lu ko def ko ay ñawi xale ñaw yoo xam ne yu dëppoog dëkk bi la waaye yu dëppoog colub dëkk bi muy xale yu góor ak yu jigéen loolu lim bi ma wax nag bokkut ci loolu valeur 2 million 100 yooyu ñu jëndoon lim bii ma lim bokku ci te loolu yëpp yëre xale la yoo xam ne yu ñawoon ñu def ko ñaw bu dëppoo ak ñaw euh, dëkk bi waaye colu dëkk bi bokku ci lim boobu euh, li nga xam ne bokk na ci def ci yëre xale nag lépp ko tataalee tamit dem na ci 1130 pièces ci yëre xale lii daal collecté nañ ko dajale nañ ko loolu nag xam nañ ne yokkute la waaye nag ñu ngi sant yàlla bu baax di sant suñu jëwriñ ñi nga xam ne moom lañu àndal war fi dañuy wax ne ku yokkul yaa wàññi waaye kenn ku ne xam ne ne sëñ Mourtala moom social tey bis bu xëyee day yokk li ko ko may nag ñi ngi koy sant di ko gërëm ndax daa ànd ak mbooloo mi waaye ñëw leen ñu dem lay wax saa su ne ma nga ca kanam di soññee du guddi du naaj waxtu wu nekk boo demee ci terrain bi doon ko fi fekk ba kenn ku nekk foo toll da ngay sa pas-pas ngir moom ñu ñaanal ko mu yàgg fi lool tamit ak kilifaam yi nga xam ne ñoo ko jiital suñ ci tuddee sëñ Abdou Fata ak sëñ Abdou bi muy toog rek mën nañoo yem foofu nga xam ne doy na waaye sant nañ ko ñun ñi ànd ak moom commission bi ndax ànd nañoo ko waaye moo ñu di ñu yokk pas-pas bu ñu toll waaye ñu ngi jaajëfal ñu seqal liggéey bi yëpp yëpp yëpp bàyyiwul kenn ndax bu ngeen xoolee xam ne lii liggéeyu mbooloo la bis bii nii mu mel it mbooleem Touba ci kanam kenn des commission amul tey amul kenn ku bokk fenn lépp ñëpp social lañ tey ñëpp àndandoo nañ taxaw ne loolu nag bokk na ci fooru Touba ci kanam ñuy sant yàlla bu baax di sant sëriñ bi di jégalu ci kàddu yi day bàyyi ak kilifa yi ñu mottali li nga xam ne moo ci des ci kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatulah. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wa salla abada ala lasi bihi lana huda bada sayyidina muhammadin wa ali wa sahbihi sayyidina wa ali wa ali antala bi rasida mursida wa fikrati nawir wa qalbi rasida asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yéen suñu bokk yi jullit yi suñu bokk taalibe yi ñu leen di nuyu te di leen siyaar te jaarale ci siyaar bi ak nuyoo bi sëñ Abibullah Mbàkke mu Cheikh Mamadou Fadal mi nga xam ne mooy jëwriñ ñu Tuubaa ci kanam di siyaare yi nga xam ne nii jamono ji daan am ci barab bi te tey mu fekk leen ñu a sori bu ñu tuddee sëriñ Alaaji sëriñ Tàkko mu Cheikh Mamadou Fadal ak sëriñ Abdoul Ahad bu sëriñ bi dana mën a yóbbaale mboolem kilifa yi nga xam ne dañoo nekk ci yenn yitte baax kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew bu ñu tuddee sëriñ Cheikh Mame Mbàkke nuyoo yi ak sëriñ Abdul Ahad mu sëriñ jiiri dana mën a yóbbaale mboolem kilifa yi teew yëpp di nuyu bu baax suñu mbokk taalibe yi ci njiital président sëriñ Abdul Fatah Gueye sëriñ Naftali Ndiaye vice président ak sëriñ Modou Bousso trésorier euh, général Touba Di Kanam ak sëriñ mboolem ñi fi teew ñëpp rek na bu ñu jógee bi lim bi mën nañoo bañ a matal di nuyu mboolem soxna yëpp ci njiital soxna Bintu Mbacke mu sëriñ Abibu ak mboolem soxna yi Touba Di Kanam yëpp ñu mën a nekk di nuyu bu baax ñu nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk bi muy soxna yi nekk dëkk bi ak mboolem soxna yi nga xam ne ñoo nekk ci département yi ak ci région yi ak mboolem soxna yi nga xam ne ñoom ci bitim réew ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax di sant bu baax mboolem waa Touba Ca Kanam ñëpp rek fu mën a nekk ñi féete ci biir réew mi ak ñi féete ci diaspora yëpp ndax fu ñu mën a àgg ci liggéey bi rek ginnaaw yàlla ñoom ñoo tax ñu àgg fa kon ñu ngi sant ñëpp di sant waa Touba Ca Kanam yëpp bàyyi ñu kenn waaye nag di sant bu baax commission bi nga xam ne ni ñoom lañ seqal liggéey bi ñu koy wax commission sociale te mooy bànqaas bi nga xam ne ni moom la Touba Ca Kanam farale ngir muy taxawu ñi nga xam ne ñoo dëkk ci biir dëkk bi ndax liggéeyu Touba Ca Kanam ñaar la bi dëkk bi ak ñi dëkkee dëkk bi jëmmi dëkk bi mooy ñaar téeméer yi ñuy dajale par weer ko defaree jëmmi dëkk bi moom ngeen gis ci assainissement yeeg éclairage public beeg poste de santé yeeg ak yu ni mel ñu dëkkee dëkk bi nag mooy social bi ñu bàyyi xel ne ab jaayante la ab jaayante la boo xam ne nii ku ci nekk yaay seet la nga man nga di ko ci def lu tàmbalee ci dërëm ba la ko gën a kawee comme ni ngeen gisee yëre yi rek ni ñu dajalee yëre yi rek mooy social yëre yi jékki-jékku nekk waaye soxna see dafa dajale ay yëre soxna see dajale yëre suñ ñu boole yëre yi yëpp indi ko mooy lim bi nga xam ne moom la sëñ bay si doon wax li social di dépassé tamit di ko taxawoo nit ñi noonu rek lay demee sëñ bi mi am na lu mu war weer wu nekk mu di ko joxe ci social bi yeneen kilifa yi tamit noonu la ñuy def sama classe gi tamit ku ci nekk la nga mën nga def ko loolu la ñuy dajale buñ ko dajalee nag liñ ci war a yóbbu ci barab bu tedd bi nga xam ne moo taxoon a ju commission bi buñ ko fa yóbbu ba noppi la la fa desee moom la ñuy jël di ci jàppale suñu mbokk bi yi nga xam ne ñoom lañu dëkkaloo dëkk bi kon ñu bàyyi xel ci ne social bi doonul xaalis bu kaas boo xam ne dafa dafa dafa teew waaye lu ñu dajale ci suñu biir la ba léegi itam képp koo xam ne dafa soxla ci social Touba Ca Kanam ñu bëri xëy na dañuy jàpp ne suñu bi moo jiite rek ñu ne nañ dem ci suñu Abibu benn dërëmu Touba Ca Kanam boo xam ne suñu Abibu moo ko yor amul suñu Abibu mën laa may téeméeru Touba Ca Kanam loolu tamit ñu ngi koy leeralaale man mii nga xam ne ñu mën lañ dénkani social bi itam lépp loo xam ne maa ko jox nit ki loxoog loxo loolu man la léeg-léeg tamit jamono jàpp ma ko ñu muy jàppee ñëpp damay sonn loolu léeg kaalaay doon kon ñu xam ne social bi xaalis bu nekk ci ay poche ndax bu fekkoon ne dafa nekk suñ poos képp koo xam ne dégg nañ soxlaam bo soxlaam daanoo ñu faj ko waaye lenn li suñ borom rek moo ko man te suñu borom tamit xëy na yaatalut wërsëg wi jox ku nekk la ko doy ndax wala basalallahu risqan li ibaadihi la ba xaw fil ard kon ñu xamee ko noonu suñu yéene ak suñu mooy buñ sañoon képp ku nekk ci dëkk bi da suñu abib bu waxoon ci kanamu moom du taxaa sa dépense ko ñoo la koy yoral waaye nag dafa jaam bëgg la man waaye suñu borom nag mooy dogal kon ñu xam ne social bi doonut xaalis boo xam ne ni dafa teew nekk ci loxo nga xam ne boo ñëwee rek mën naa tibb may la ci ndax Touba Ca Kanam ñoom dañoo wax ne laaj lu ñu am def ko fu ñu xam léegi bu fekkee ne man xaalis bi man maa ko yor ci sama poche di ko joxe loolu moom tuddatul laaj lu ñu am jox fu ñu xam waaye li muy tudd kon mooy laaj luñ man jox ko ku la neex kon benn dërëmu social boo xam ne ci man la nekk amul képp koo xam ne dafa soxla ci social bi tamit du soxla woo nga woo man wala ngay woo seen bi wala ngay woo yeneen kilifa yi Touba Kanam yi di leen sonal Touba Ca Kanam seen mbir dañ koo nos yoon wi mooy da dem ci seen Touba Ca Kanam bi te yóbbaale liy firndeel ne li nga wax wér na te booy dem tamit nga jàpp ne nii la sa soxla ñore nii mu mettee am na ñu la mett gën a mettile mën naa am jiitu ñu jiitu na la liñ lay jox itam mën naa am nga fekk ko fa waaye mën naa am tamit doo ko fekk benn dërëm ndax ñiy joxe ñiy laaj da ëpp kon ñu xam ko noonu ñun ñëpp ba fu mu jugee fii rek ñu xamee noonu noonu lay noonu lay tëdd lii ñu amoon yéene itam joxe ko ci tabaski gi ñaari mbir la wolof yi dañuy wax ne xar ak xartum xartum yi ci lañ nekk nii mooy suñu bokki taalibe yi am na ñoo xam ne yàlla mën lool na leen ñu mën a yëkkati ay yére jënd yu yees waaye am na ñoo xam ne ni suñu borom mëndoowu leen ko te ñoom ñëpp taalibe sëñ Tuubaa lañ nekk ci dëkk bi si sëñ bi doo nga lañ yaakaar kon nag li li war ñi nga xam ne mooy mooy ñi man mooy ñu jéem a jël ci liñ man ñoom jàppale ci ñu mënul bu ko ñëpp defee ci wet gu nekk rek ñëpp danañ mën a am lañ bëgg moo waraloon ñu woote ab jaayante boo xam ne nii képp koo xam ne nii mën ngaa indi yëre yu yees yoo xam ne nii ku la ko joxoon nga mën koo sol jullee ji ko nga indi ko ndax lan tanaloolu birra xataa tunfiqu mimmaa tuhibbuun suñu borom nee na du ngeen jot du ngeen am lu baax mukk batee da ngeen a jël la ngeen gën a bëgg ngeen dundale ko ci yoon yàlla te wa maa tunfiqu min shay'in fa inna llaaha bihi aliim boo fi ñun buñ ko xamul tamit suñu borom xam na te suñu borom ku nekk sa jëf rek la lay fay kon loolu moo waral ñu doon taxawu suñu bokki taalibe yi di sant bu baax association tailleur yi ci jë jiital sëñ Bay Sarr ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo ko ci doon jàppale ak association tailleur yi nekk Mbàkke jëndoon nañu ay tiise moom la sëñ Bay si si sa doon wax léegi lu toll ci ñaari mil ñaari million ak lu topp ñoom ñu ñawal ñu ko jaayante ko ci lu ñu leen ci fay benn dërëm loolu nag bu fekkoon ne ñi dëkk ci dëkk bi yëpp am ay métier bu Touba Ca Kanam soxlaa la nga man danga nga koy jaayante jàpp ne li Touba Ca Kanam li war Touba Ca Kanam ci dëkk bi moo la war su boobaa jàmbat yi ñuy jàmbat yëpp waxuma dana jeex waaye mën naa wàññeeku kon ñin am yéenee jox ci ay kër sëñ Bay lim na ko léegi ëpp na ñetti junni yi kër yoo xam ne fas nañ fa yéenee dugg su noppee fi incha allah liñ am ci yére itam ëpp na ñeent fukki yére ci yi nga xam ne dañ koo ñaw yin ñëwut sëñ Bay wax na ne liñ ci am ëpp na juróomi téeméeri yére prise nag takkaay yeeg koddaay yeeg ñu dem loolu mooy xarsum bi li jëm ci xar mi ba léegi Touba Ca Kanam joxewut ay xar affiche boobu ngeen gis ci tablo bi li muy tekkantel mooy mbir mooy dënmal dangay def luy wane ne lii lañ cey lañ cey joxe gis nañ ne ñiy def ay affiche yëpp buñ jëmee ci koor dañ cey dessiné tàndarma loolu mooy wane ne kon koor la ñuy wax buñ demee ci màggal da gis ñu dessiné fa aw nag wala xar wala aw ak giléem nga xam ne màggal la ñuy wax tabaski tamit li koy symboliser mooy am xar waaye Touba Ca Kanam joxe wut am xar waaye lu mën a dem cim xar lay joxe li mën a dem cim xar tamit jamono ji ñuy waxe nii man na maanaam képp koo xam ne jotuñu waroon bind ñu xam ne suñu borom moo séddale te li ñuy wax olof di wax naan daanu dafa dajut suuf buñ sañoon waa dëkk bépp la ñuy jox waaye nag mënuñoo jox waa dëkk bépp am nañ yéene ji nag kon képp koo xam ne jotuñu loon bind kon dañuy muñal rek ba beneen yoon liñ bindagun ci ay nit ngir bëgg leen a jox juróom-ñeenti téeméeri nit la ak ñeent fukk ak benn ña nekk ca liste ba di xaar nga xam ne ñoom buñ amee li ñuy bëgg danañ leen ci mën a boole ëpp na juróom-ñeent fukki nit ak benn 91 personnes ñooñu nag li leen di jox doonul lu fi teew nii waaye lu ñu wuti la kon yéen ñii teew sax koo ci man da daal di dugal ca compte social ba la mu yor ndax fi mu toll nii pour ñu satisfaire nit ñi ñi ma wax ñe li ma wax léegi ne ñoom ñoo bind ba noppi ñu war leen a jox li ñu leen war a jox war nañoo am 33 millions 150. numéro social fanweeri million ak ñett ak fanweeri junni lañ war a am ngir mën a faj bëgg-bëgg yi ñooñu ñu wax te fi mu toll nii may waxee nii li ñu amagun ci xaalis matagut fukki millions ak juróom matagut 15 millions. kon nit ki li nga yaanu boo ko attanut doo jëlaat leneen di ko ca teg kon tamit ñu xamee ko noonu. ki ci bëgg a barkeeloo nag tàmbalee ko ci man mi ndax ñun ñëpp ku ci nekk mën nga dara nga dugal ko ci 77 914 26 68. wala nga jox ko koo wóolu ci Touba Ca Kanam mu yóbbu la ko ci commission sociale. kon loolu lañ ci bëggoon a leeral ci wàllu googu gannaaw loolu itam li tax ñu def lii xalaat bi mi ngi bàyyi ko woon ci kenn ci soxna yi nekkoon ci commission sociale muy soxna maam Diagne ay dara ndax liggéeyu Touba Ca Kanam du kenn waaye liggéeyu mbooloo la. yàlla def na ban agsi fii di ko def ay ati at ñu ngi ñaan suñu borom barkeel lépp. di ko def tamit ci dëkk boo xam ne nii lu baax fépp la baaxee waaye dégg naa sëñ Moussa am sëñ Abdou Khadir mu ne sëñ Modou Moussa waxoon na sëñ Abdou Khadir ne ko lu baax fépp la baaxee waaye Touba la gën a sakkane kon jaamu yàlla bu mu mën a doon nga defee ko Touba moo ëpp solo waaye nañ xam ne tamit kon safaan bi tey Touba la gën a bone maanaam mooy yàlla fu ne la bone waaye Touba la gën a bone kon moo tax ñu taamu ko ci defe ko ci biir dëkk bi bis yëpp itam la baaxee waaye defe ko ci fukki fan yi nga xam ne moo njëkk ci tabaski muy muy li alxuraan di wax wala yàlla na asri bis yi nga xam ne nii jëf ju baax fépp la baaxee waaye def ko ci bis yi moo gën moo tax tamit ñu taamu ko ci bis bii defe ko ci dëkk bii kon loolu rek lañ bëggoon a leeral di sant mbooleem koo xam ne dugaloon na ci sa loxo di wax ne tamit eh, lu fii ak nit ñaa ngi joxe ñuy gën a yokk bu nit ñu joxe woon lu ëpp 100 millions ñi fi nekk ñëpp dañ leen yokkaat ci kon noonu la social bi doxee waaye social bi dundul xaalis bu fa tegee noonu kon ñu ngi ciy soññ suñu bopp di ci soññ képp ku ñu sañ a soññ di sant waa réew mi di sant waa bitim réew gannaaw loolu itam ñi nga xam ne ni ñoo ma féete ndaw wala ñu tolloog man ay at ñu gën a bàyyi xel bu baax ci ndigal yi nga xam ne nii suñu kilifa yi ñu ngi koy santaane rawatina Cheikh Mamadou Mountakha yàlla fi yàgg lool te wér ci li muy santaane ci dëkk bi ñu di ko ci jàppale te xam ne dëkk bi Sëñ Tuubaa ji sañ ci dëkk bi dëkk bi dañuy dañuy gàddaay ñëw fi waaye kenn du tuxu ñëw fi tuxu mooy nga jóge sa dëkk ñu tegal la ab oto nga yenn ci sa bagage ya nga amoon bu fekkee ne fekk na nga daan def jëf yu dul noona nga indaale bagage yooyu ci dëkk bi boo ñëwee indaale fi sa jikko di def na nga daan def ci sa dëkk yooye loolu mooy tuxu gàddaay nag mooy da nga fay bàyyi lépp loo xam ne nii islaam gërëmu ko sëñ bi gërëmu ko nga bàyyi ko ca dëkk yooyee te boo ñëwee ci dëkk bi nag nga jéem a fexe ba li ihya i sunnati yi gi sëñ Tuubaa waxoon fii ci dëkk bi nga jéem caa gën a góorgóorlu kon sëñ bi dëkk bi daa am lu mu fi bëgg nañ ko ci jàppale bu baax baax sëñ Muntaxa nag wax la man muy laabiire ñu moytuloo ñu waaye sëñ Tuubaa ci boppam nag moom dànkaafu na boo boolem képp koo xam ne da fiy def ab safaan wal tax mi daari yaanil fujóori wal fisqi wal baatali fi doori kon dëkk bi moom lu mu néew xam nañ ne nekkee fi li la neex di ko defee li la neex màggat fi am lépp loolu mu bëriwul lu ma koy dégg kon kon li nga xam ne nii moom ngay def di ci am ndam di juyoog ndigali sëñ bi wala ngay mooy yàlla ci dëkk bi ba noppi say xéewal di gën a jàppandi nga yaakaar ne loolu mooy ndam déedéet sanastadrijuhum min haysu laa ya'lamuun la picc boo koy bëggee jàpp doo jékki rek daw song da ngay xëcc di jël pepp di jël ndox di ko suyal muy ñëw te fekk boobu da ko bëgg a jàpp nit tamit bu fekkee ne day def dara bu la yàlla naree ci yow ab safaan da lay gën a yokk wér di la gën a yokk aral nga nekk ci dëkk bi def da la neex waaye da ngay xëy suba rek bis bi bis ñëw lépp dem kon dëkk bi du dëkk boo xam ne ni dañ fi toxu si waaye dëkk bu ni gàddaay ñëw la hmm. kon ñu gën a jàppale sëñ bi ci ci ci loolu hmm. di sant bu baax mbooleem presse bi ñu fi teew ñëpp di ko jaarale ci communication commission communication bu Touba Ca Kanam hmm. di leen jaajëfal bu baax a baax a baax tey sant mbooleem bokk taalibe bi yëpp rek xëy na amuma du ma du ma du ma bàyyi di sant soxna yi baax a baax ndax yére yi ñu fi am indi fii bu doon téeméeri yére la góor ñi juróomi yére lañ ci am kon li ci ëpp jigéen ñi la jataay bii boo xooloon ñi fi doon aw góor ak ñu doon aw jigéen jigéen ñee fëpp fuuf noonu lañ gën a jàmbaaree ci commission sociale noonu lañ gën a jàmbaaree ci Touba Ca Kanam kon ñu ngi leen di sant bu baax ñaan gaak la ca aju moom sëñ bi ñu ngi sant ñi nga xam ne ñoo nekk département yeeg régions yi ñëpp ak yi nga xam ne nii boobaak léegi ñooy ànd ak bi di yéegal ay bagage ko wàcc ak soxna yi nga xam ne ñoo defar bagage fii yëpp rek ñu sant bu baax a baax ñun sant lañ man waaye nag sëñ Tuubaa moo am seen fay yàlla na leen fayal boppam di gërëmaat ñëpp rek otus bi doon sa bëkk fi fuwaat yi ba xayal xalx fii tamaat yi ba alihi wa sahbihi jamii'an subatan ba kulli muslimin mutiya lii ñuy def itam xidmalil muslimina la te xidmalil muslimina mooy liggéeyal jullit yi sëñ Tuubaa wax na ca masaalik ne yowmal xiyaam bis bañ ci teewee ban jël siraat gàtt ko ci diggu jahannama te faw nga jaar ca ndax suñu borom moo moo wax ne faw nit ki jaar su boobaa bu ñu tollee ci xat-xat yooyu nga xam ne ku nekk sa bopp ngay tal day am ku woote ca kaw ne ana ñu doon liggéeyal jullit yi ñu ñoo ngi ni ñu ne leen yéen bokk leen ci yii wax yéela in xadarat yowmul bari wa a siraat fawqa naari fawqa naari naada mudaadin na ahlul xidma lil muslimina fa ajaaboo ajmahin fa yumaroona li jinaani musrihin bi an yuqaadu lahum lahum lahum janna bi xayri mihnati wa xayri fitna faxdimhum li wajhi faxdimhum tolloon li wajhi llaahi faqat bilaa man wala tanaahi kon Sëñ Tuubaa moo joxe ndigal ngir ñuy ñuy liggéey julli di fu mu mën a nekk faxat nag bilaa tolloon faqat bilaa man wala tanaahi te ñu bañ cee boole nag gis suñu bopp wala ñu jàpp ne ki ñuy jariñ dañoo war a sant ndax daa daa tubtiloo sadaqaatikum bil manni wal asaa suñu borom ko santaane loolu moo waral ngeen gis Cheikh Mouhamadou Mountakha dimbali gi muy dimbali julli day dimbali waa réew ba génn réew mi bu yàggul sax gis ngeen mu dim mu def ko ci turki loolu nag li ko waral mooy loolu sëñ bi waxoon ne fax di moo tural li wàcce daa ngi faqat bi daal man ne laa tanaa kon ñu ngi santaan ñëpp te jéglu ci kàddu yu guddi yeeg wax ju bëri jéeg yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi wa sallam wa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi daal ñi fi teew yëpp maa ngi leen di nuyu kenn ku seen tool seen sant tur bi Sëriñ Tuubaa Cheikh Amadou Mokhtar ak ki tudd Ndébu Cheikh Xadi yëpp waaye di nuyu turu waa Touba Ca Kanam yëpp di jël suñu kii moom sa sëriñ Tako Aïssa Tako moom sa Ndébu Touba Ca Kanam ñi xam moo nekk ci ambassadeur bi seen dara yow mi nga xamee ne mooy waaye di nuyu ci tur soxna Bintu Mbakke mi nga xam ne mooy jiite soxna yi waaye di nuyu tur Seex Abdou Guèye mi nga xam ne mooy jiite ñu yi ne ci waar bi di nuyu Seex Mouta Moutala mi nga xam ne bi ak ak ñu àndal social bi lépp di xoolal seet bi ba li ma la wax mënu wax waaye mi ngi nuyu kilifa teew yëpp suñu Seex Mouta Guèye suñu ak suñu Moussa teew ñëpp teew ñëpp rek ku ne dangay jëm suñu ko seetlu guy maa ngi nuyu soxna yi baax di jël yoon bi teg ko ci loxo soxna Ndeye Diop mi nga xam ne moom teew soxna Bintu ak soxna Suwaay ñoom ak soxna Amna Aïda ak soxna yu teew mu soxna saa si léegi ànd ak moroom bari mu soxna Ndeye Ndiaye ma leen ñu koy jaaree ànd ak moom jaaree bi ñu laas yi day ne ak jamono ànd yëpp ñu koy nuyu du seet loolu dara jàmm moom boole naa di nuyu waa jaaree ñëpp bokk taal bi teew ci waa lépp la waaye nuyu waa diaspora bi ak waa réew mi wala émission yi ñeent fu ne am na ñu fi jógee ñëw indi seen at yi ci liggéey wax dana jafe ci man tuuti ki yi wax a suuf jënd fi ay ci war a góorgóorlu bi ndax baat bu ko wax rek baat bu am njëriñ la si yi ñaan yàlla yàlla yàlla yàlla dimbale yàlla yàlla a suuxal suuxal set ba muy am na loo xam nit da koy jege ba mënu ko wax ci boppam li mu wax ne xeex jege na barab bu ko gis waaye buñ la sant dina ñaan yàlla rek loolu sori caw cat gi yëpp yëpp kon nag way tam dama leen sant dina ñaan yàlla ndax ñaan yàlla moo ko solo ndax cat gi ma siy tuwaat ma ci yéen kat boo yëgal si tuwaat kon taxaw gi mu taxaw fii yëkkati kàddu yi ngir seeral seen tuwaat jëf ji nga xam ne ni mënu jëf nañ ko ñu ko seet seen xarit te ñaan kenn ku def ak ku koy yéene di mhm. sant waa presse bi ñu teew ñëpp. nga mhm. xam ne fu kàddu yàgg yàgg nañu fa. ñu ngi sant baax di leen tam ndax yàlla na liggéey bi di jàpp di jàppale. di mhm. euh, sant waa commission yi nga xam ne ñoo yor communication. communication ak yëpp rek. suñu baara ñoo war soxla ba ñoo war bokkaay bi yëpp daal. Euh, tey nag moom ñu si sant la yàlla la ndax yàlla naa si si sa ut laa woon ba fan yi nga xam ne yooyu tabaski la bokk na fan yi nga xam ne lu waay ñaan yàlla mu nangu bokk na fan yi nga xam ne saa boo jëlee nga takk biir ñetti yoon waaye bokk na fan yi nga xam ne lu waay ñaan yàlla mu nangu ci ay tasbihaat ak i tahmidaat ak i tasakkuraat lépp yàlla yàlla tax ñun ñëpp suñu borom nangu ñu jëf yi yàq ñu fi yàq yëngut noonu mu waxee rek ñu ngi sant bu baax suñu borom ci jëf yooyu yi nga xam tax xel ñu ko ñu wàccee toog di fi waxal li ñu dégg ndax jëf Sëriñ Tuubaa la nga xam ne ak mbaaxam rek ak yërëm nga ak ñoo dimbali rek moo tax Touba Ca Kanam feeñ mais du naqaam boo xam ne nit ki mën a wootee muy suuf wala daraja wala kàddu boo xam ne da nga ci mën a xëcc nit ñoom déet loolu ci aw de seen Touba rek la yoo xam ne mu namoon jaar ko fii mu jaar rek ndax du xalaat boo xam ne ñu ngi xalaat ci àdduna xëy na am na ñu ko xalaat woon waaye daa jot bu doon bu ñu jotee rek jaar ci ñu jaaroon si Fallou Ndiaye ak ñu àndoon ñu ngeen ko nañ ko wax tàmbali ba rek ba si mu jaar ci kàddu yi sama borom barkeel ko baasi fii kon loola dama wala ne man loolu ak naxsaay la waaye du du du du dara yoo xam ne ko dara ñu ñaan yàlla rek moo gi ñu wër nit ñi suñu ngir yàlla yàlla mu gis dara ci ñun a yàlla mu gis suñu bopp nañ xam ne jaam bi gën a xeeb jaam yi dañ ñoom waaye taalib bi gën a xeeb taalib yi ñoom waaye nag taalib yi gën a bëgg sëriñ Tuubaa ci ñu bokk yéen ñoo ko am ne ñëpp xam naa maa ngi seet sëriñ Tuubaa loolu te ñaan ëllëg si biir nit ñi mu teew ci àdduna àndee ko nii yàlla ko teew ëllëg ci bu gis bopp ci liggéey bi ndax ñu ko sëñ Mutula waxee rek liggéey na dañ koo xam ne boo gaa yi fàttali doo aadama daa gaa yu ndax tuuti rek mu daal def man man lu baaxut daa ah du sëdd xarit bi naan yoo xam nga tey te lañ tegu baaxut day lom ñii wala ñoo kon lépp lu waay def yàlla tax mu def yàlla gis na lépp tudd li sax jëlu ko ndax koo tudd mu jàpp ne koo kii waaye kii tudd na jàpp ne mënuñ tudd ndax jëf na ci am kon sam nañ leen gërëm nañ leen noonu ko waxee ci dëkk bi rek ñun waatu waaj kanam am nañu sag waaye am nañu sos bu baax ba kenn koo xamante ni ñu ñëwee tudd ñu tudd ci waaj kanam lii tere bu ñu kenn seen bu la ci kenn gis bu ci nañ nekk ay exemple yoo xam ne dëkk bi dañu rek ci ñoom ku bëgg ku bëgg a liggéey sa tuwaay ñu la xoolal tuwaay kanam ku bëgg gën a jub la xool Touba ca kanam loolu mooy suñu ndam mooy genre bi xam ne mooy war a yar mooy raay bi xam ne moom gàddoo fu ñu jël jël ko fi ci dëkk daa bëri am na noo xam ne suñ bi waxaat ko ci noix yi boo ko woon boo ko firee foofa yàlla kese kese mooy ñun ñi rek yaay di Sëñ gàddaay ñëw fekk si ñun toog suñu neen gàddaay maam yi gàddaay ñu gàddaay fekk Sëriñ Tuubaa kon ñun raam ma lañ kon ëpp jiw la am bu baax ñu am aw raama xun man mi nga xam ne commerçant foo xam ne marchandise moo tegu jar loo teg nekk loo xam ne boo teg sa teg sa marchandise bu jar ñooñu moo la fi indi mën nañ may bëgg Sëriñ Tuubaa sax waaye comme me def bàyyi waaye bëggul Sëriñ Tuubaa yaakaar nañu ko doyloo ko waaye comme fi nekk tax ñu ko mu rek moo tax ñëw fi waaw daal xam man loolu wér ñi nga xam ne ñëw nag comme ni dëkk la xam ne sutura am na fa ku fa dugg kenn ñu ñëw Tuubaa dëkk si nekk ci seen aada yee indiwoon loolu kooka loolu wér la sa sa xëy aw daal man la kon kon ñoom tooy nañ indi waaye ñooñu roq roq bi leen di roq ñu génn ci fi. kon li ñu waxoon ne ab roqam fii ab lonkam fii lonk bi mooy foo waay nekk lu sori sori sori te sëñ Tuubaa rek tax nga ñëw fi wala nga yaakaar ko foo nekk lu mu sori sori dañuy lonk nga ñëw ci yaa ngi sëñ nekk ci xam ne daa nekk ci dëkk bi waaye sëñ Tuubaa nekk ci kooku roq roq bi ngay roq bi ñu fi ñu ko roq yi xarit bi ci yàlla ci yàlla bu sat kon sant nañ yàlla baax waaye ñi gën sant yàlla ñun ñoo war a gën a sant yàlla waa ndax ñi nga xamante ni Sëriñ Tuubaa moo tànn ay dëkkandoom moo la ñu ci jàggee di ñàkk sax ñàkk Sëriñ Tuubaa yi dëkk Tuubaa mu ci nekk waaye ku faatu fi nga yaakaar yi sólle wala fu nga suul tamit dafa yaakaar yërmande yàlla waaye taxaw Sëriñ Tuubaa si diggante sa borom kon a sant yàlla ndax moo ne da dóor yow maa jox dóor mu jeeraay naa ji ñu jaay yu xusaan yi sama kër ak sama sama dëkkandoo ak sama alal lépp yàlla mos nañu perte perte nag jàggee na jëndee jëndee juróom jëndee fukk jaayee juróom loolu perte loolu ñàkk bénéfice la

waaye ku lekkut naanoo. wax dëgg yàlla a jàmm yàlla. ak musul ñu naan saako bu ne fa pexe mën kon nag jàmm yàlla jàmm yàlla yi nit ñi bala ñu mën a taxaw. mën a jox social mën a joxe mën a joxe seen doole. Mhm. wala ñu mën a liggéey seen doole ñu daal dañuy dañuy a def kon social bi ñu gën a góorgóorlu baax a baax. Mhm. seen bi tànk yi ñu wax yëpp seen ko. Mhm. waaw yàlla mi nga xam moo taxoon yàlla na ko moom. jaay ñu ko àndal ñëpp. waa Touba Ca Kanam ñëpp set na guy du neex ba suba tamit du jeex mm-hmm. waaye gën a sant soxna yi rek mm-hmm. dina gën a jaajëfal da mm-hmm. dina xamal ne xol sëñ Tuubaa seet na ci yéen yéen de nii ñu ngeen nekkee ëllëg ñi rek ndax jigéen moo njëkk a dugg ci lislaam Seydina Xadiija moo njëkk a joxe alalam moo a gën a womal ci Xuraysh ci Makkatul Mukarrama borom këram xam ne sallallahu alayhi wa sallam moo ci réew moom jurutoon dara mu jël ko adapté ko ci boppam mu daan ko liggéeyal ñàkk mu xëy jëmal ko boppam mu nekk soxnaam doom yëpp moo ci moom ko yàlla jaarale mu miskan kooka def na def na effort bu rëy ci lislaam hmm. lislaam jigéen tim moo njëkk joxe boppam martyr bi mooy mooy mooy mooy shahida waaw hmm. ah, su may yàlla kooku ci boppam kenn di moom des hmm. ah liggéey bi rëy bi ngay gis ti nag ki ki ñu ko ki ñu ko protégeel jàpp ñu téye ñu ko ba mu àgg si fii ci ñun ginnaaw bi yàlla wooyee taxal moom moom fa yàlla jaarale mbiram ñu soxna jaara ñëpp gis nañ njëriñ bu bu yaafasoon lii du am bu weeroon Sëriñ Tuubaa lii du am waaye jëfam ju rëy ak jaay addunaam jëndee ko jëndee ko ngërëm yàlla may moo ko may li mu am tey jii. ba tax na kon lu baax la jigéen la. kon nañ gën a góorgóorlu baax soxna yi. sant nañu bu baax gërëm nañu leen. Euh, loolu rek laa bëggoon lu ci wax. amiin na ñëpp boo xam ne boo leen bëggee am mboolem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abone bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mboolem vidéo yi fi bàyyikoo